bâtiment bi nga xamante ni dafa daal di màbb euh, lu ni mel nag euh, tax na ba euh, bilan bi ci ñi nga xamante ni ñoo ci am ay gaañu gaañu dem na ba ci fukk ak ñi fukk ak ñaar mais lu toll si juróom ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan mu nekk nag ab situation bu regrettable bu nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci le directeur général de la construction et de l'habitat di Amadou Thiam indi na ci ay leeral ndax nee na yi nga xamante ni jot nañ ko ci def nee na ñoo ouvrier yi nga xamante ne dañ leen engagé woon ngir ñu defaraat boobu les bâtiment ñoom ñoo deful liggéey bi nga xamante ni moom moo ca war ndaxte borom kër gi sax demoon na ba sentir ni bâtiment bi amatul kaaraange moo taxoon mu génn te sàkkoon aussi tamit ca way locataire ya ñu génn ci bile bâtiment ñenn ñi nag génn nañ waaye amoon na nga xamante ni ñoom ñoo des ña fa desoon sax ñoom ñoo a am yi lépp gaañu gaañu nee na nag maçon yi dañoo ñëwoon dañ leen wax ñu réfectionné mais ñoom dañoo jël ay mesures ni daal dañuy yokkaat li nga xamante ni di feere ak mun na tax bâtiment bi dëgër donc daanaka daal fu mu ne ni bu sukkandikoo ci li mu wax responsabilité bi incombé nañ ko ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu joxoon travaux yi nee nañ nag dinañ ci gën a wéyal ci enquête bi te lépp lu ci responsabilité rek dinañ ko situer yoon dina ki def liggéeyam ndax il y a eu sa gis-gis. waaw baatu njaal d'abord ci ñi ci ñàkk seen bakkan ak masawu ñi nga xam ni ñoo ci jëlee ay loru. muy ak blessé di ñaan yàlla ñu gaaw weer gaaw tane borom boobu fëgg seen bopp penda dëkk bi avancé wul ci côté sécurité wu infrastructure yi mhm. boo bàyyi xel un naa ci ginaaw waxtaanee nañ fi lu mel nii amoon na effondrement wu bâtiment bu amoon côté Médina nga laajoon ma ma di la doon wax na la man it sama koñ am na même chose ba suñu benn dëkkandoo bu baax bu doon yittewoo jumaa yi ku ñuy wax Idrissa ñàkkoon ci bakkanam mm-hmm. un an après ñi ngi toogaat di waxtaanewaat même chose mm-hmm. dafay wane ni jéego yi ñu ci war a def des na mm-hmm. VDN bii booy romb am na benn bâtiment bu ñuy tabax immeuble bu mag bu dem ba ci kaw dernier étage bi effondré wu ci kaw da ngay gis ne direction bi yore sûreté boobu man li ma gëm mooy des na yitte yi ñu war a def ngir sécurité publique gu nit ñi par rapport ak yenn bâtiment yi Dakar bëri na bâtiment yoo xam ne waratul exister dañ leen war a màbbal mhm. non seulement normes sécuritaires yi newu ci mais ku ko xool xam ne bâtiment yi tabaxuñ ko ak assez d'affaires yi ñu ci war a def mhm. loolu nag les responsabilités son partagées kii tabax bëgg rek ne maa tabax nangam bu mu ko taxa fu mu waroon def faire douze def fa faire six tabaxkat itam maçon voilà bëgg plus d'argent bu mu leen taxa nit songu marché boo xam ne leer na leen ni y a des risques pour ñoom ñu koy tabax. Mm. ak y a des risques tam pour ñu koy dëkkee dafa loo xam ne àq la. Mm-hmm. jël ab bâtiment ñu jox la foo war a def faire douze nga def fa faire six. Mm. gaaw livre lekk say doomi aadama dee ci. Mm-hmm. àq boobu da lay topp si giir. donc doomi aadama yi nañuy sóor àq. Mm. àq dafa sew trop trop donc man dama gëm les responsabilités sont partagées. Mm-hmm. entre ñi moom bâtiment yi ñi leen koy tabaxal ak ñi war a surveiller sécurité publique ci nit ñi. par rapport foofu moom zone boobu moom domaine bu état bi war a defaat loxoom la ngir gën a aar kaaraange ni parce que bëri na trop loo xëy dégg bâtiment bu mhm. effondré wu bâtiment bu effondré wu mhm. donc wane ni daal norme sécuritaire yi des na vraiment. ci mhm. mel aussi tamit ci fàttali am na lu toll ci 1200 euh, bâtiments yi nga xamante jot na leen euh, recensé yooyu tamit ñu nekk en ruine. Mm. ni ki at euh, nekk nii di ñeen rek autorité yi aussi tamit gën ci def li nga xamante ni moom moo di seen liggéey parce que nag ku ne boo dëkkee ci ab bërëb moom ñaan nga yàlla am ànd fa xel mu dal locataires également ñoom aussi tamit occasion la pour ñu lancer le message je que ku la loué aussi tamit dem ba ci biir gis ni moom

Karim Wade bi nga xamante ni conseil constitutionnel daf ko daal di invalidé ndax rek bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moo di benn pièce ba nga xamante ni woon na ko ba tey ci fàttali mu ñeel li nga xamante moom moo di nationalité te moom juré woon na sur l'honneur que ni lu ni mel lu ni mel ban jàngat nga ci am puisque depuis ce matin ce qui se passe à l'Assemblée nationale notamment agression wu ki nga xamante ni moom moo di Diomaye Sam Sall bon assemblée moom sama jàngat lu simple la ay nit yu tuuti ñoo fa nekk di jëf-jëf yu tuuti. Hmm. loo xam ni c'est pas digne des représentants du peuple. Hmm, ñu koy gis ni ci image gis nga Mame Diarra euh, Fam. malheureusement fii la république bi toll. Hmm. Sénégal il est plus qu'urgent de sauver cette république. notre république est à terre. parce que ñi nga xam ne ñoo incarné. yenn instance yi walla ñooy représenté askan bi ci yenn instance yi matewul. li xew assemblée lu ñaaw la lu tuuti la. Mhm. mais lan moo xew assemblée lan moo ko waral benn parti politique ñoo ne tey asamaan ak suuf laale ndax seen candidat bokkul ci élection mhm. te alors que am na ñeent fukki nawleem yu ñu recalé ndax Karim Wade dafa gën a nekk ñooñu sénégalais ndax Karim Wade dafa ëpp ñu droit ci réew mi ba waa PDS nag bu Karim Wade bokkul élection du am ci dëkk Ousmane Sonko bokkul. Karim Wade daa ëpp bàjjen Ousmane Sonko Sénégal. Mm-hmm. ah. ah kon pourquoi Sonko moom bokkul élection am Karim moom du bokk élection doom. Karim ma ca Ndowa. Mm-hmm. ca hôtel ya teg lay tànkam. mooy bloqué ñun suñu processus électoral. parce que li nga wax ni loolu la clairement Mame Diarra Fam wax. nee na bu Karim Wade bokkul élection. daal waxi kacaw kacaw la loolu moo la gën a xam taxawul fenn. élection day am kenn mënut a fexe bañ daal. ca élection lañ jëm bëgg bëre bañ bëre en fait PDS ñoom dañu ñoom dañ leen may prétexte su maanaam alibi bañ a tànn candidat bañ a voté ñoom dañoo parewul ca élection lii mooy dëgg. et puis la faute à qui je pense que ñoom ñoo ah. choisir ab parce que seen candidat moo waroon mate. ni nga xam ne noonu la élément noonu la dossier am waroon matee ngir mu déposer candidature am seen candidat ñoom lay fooy moom mi leen ne moom candidature am légal na dossier yi mat na il est exclusivement de nationalité sénégalaise alors que tel n'est pas le cas. moo tax am na ñu jàpp ne est-ce que dès le départ c'était pas le but recherché. mën na nekk léegi luñ ci def yëkkati benn yëkkati ay accusations sans preuve jusqu'à présent jëmee ko ci d'honorable magistrat ay kilifa yoo xam ne seen dund yëpp. dañ ko def au service de la justice et du peuple sénégalais. ay mag ay kilifa dem ba seen bopp weex tàll. ay politiciens yu tekku dara di wër plateau télé yi di wër ci assemblée fu ne di yëkkati ay tuuma di ko jëmee ci ñoom. mu leer la ne ñooñu amuñu possibilité bi nga muy génn toon. Penda est-ce que xam nga tuuma ni mu méttee. kilifa. Mm-hmm. am mbokk am njaboot. am ay sët. mais doguma la moo tax lu nu mel ci kenn ci juge yi nga xamante ni ñoom dañ leen tuumal wàllu corruption. di la juge Cheikh Ndiaye eh, eh, yëkkati na ab plainte moom bu ñu sukkandikoo ci avocat bi di maître Bamba Cissé ci mm-hmm. mooy di avocat plutôt moom porté na plainte eh, ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo tenir yenn déclaration. tout à fait normal jàpp ni daal lu nu mel dafay entraver bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di honneur. ñi nga am yaakaar ni. li muy ciblé nag moo di outrage à magistrat diffamation le discrédit sur une décision de justice am yaakaar ni yoon dana dem jusqu'au bout maanaam fexe ba kii accusé bu tegul tuuma daan bi war dal ci kaw dal ci kaw loolu la justice wax loolu sax la diine wax ku sosol as gor diine daf ne kooku lii mooy punition mm. loi tamit wax ne kooku lii mooy punition des accusations infondées la léegi nag dafa am lu olof ñaay di wax naan bukki bu dabee waxambaane ci ndoxin bala justice waroon nañ xaar lii xam ne dana leen dal keroog ba juge délibéré ay journalistes génne di ko attaqué ba dugg ci famille sur la Mame Mbaye en première naissance et Sonko hmm. la UMS waroon am taxawaay bu ferme dénoncé loolu pointé du doigt loolu doon baare leen laaru amul dénoncé na acte bu xaaral waaw dañ ko yéex xaaral rek ma ñëw boobu defuñ ko jiit nañ juge boobu lu ne défendruñ ko saaba si fay yëkkati ab a joxe indécision décision de justice à Ziguinchor ñu bañ na duñ ko appliqué yëkkati ay tuuma jëmee ko ci moom dégg nga UMS juge ya euh, Ousmane Yacine coor mii yëkkatiwaat une délibération dégg nga li ci am waaw yooyu yëpp moo indi tey ay nit ñemee maanaam ñi yëkkati accusation yi dañoo làmb mu nooy ñu teg pédale bi accéléré fale si attendre ci benn benn yi lañ commencé mu jàll ñu accéder ci sommet ba mooy sommet wu justice sénégalais ñii ñooy incarné li nga xam ni mooy l' appareil judiciaire du moment que ñooy incarner l' appareil judiciaire lii nekk di xew assemblée ay mag yuy nax seen bopp la ak lu amutirul fenn ndax commission d' enquête parlementaire bi mënuñu fexe ba déglu ay juge à cause du séparation des pouvoirs. mënul nekk xaaral ma ñëw mënuñu fexe ba déglu juge yi donc assemblée lu ñu fay lijjanti c' est politique lii politique la. mais dama lire ce matin. Mhm. ci le quotidien. Euh, ñu ne ginnaaw plainte bi nga xamante ni euh, avocat yi plutôt juge yi ñoom jébbal déposé ko ci kaw ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi les auteurs maanaam yenn membre PDS yi nga xamante ni ñoom ñoo porté cette affaire ci li nga xamante ni moo di commission d'enquête parlementaire bi di tuumal yenn ki juge ñoom aussi dañ leen plainte mais euh, selon l'article du règlement intérieur nee nañu de l'Assemblée nationale il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque sont en cours. Le texte si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès, dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création foofu ñoom ñu ngi sukkandiku ci li nga xamante ni di plainte bi nga xamante moom la juge yi def jàpp ni ba plainte am na ci rek ci yi nga xam ñoom ñoo di auteurs yi lu ni mel dafa waroon dakkal li nga xamante moom moo di procédure bi nga xamante ni dégg mu ne mm. nga liir léegi du non seulement mun ta régler problème ñoom bi ñu soulever. Mm. mooy ndax si oui ou non ces juges ont été souillés. Mm. si oui ou li ñuy accuser juges yi am na wala amul. si oui uno fii mën na boolewaat Karim Wade ci fi maanaam assemblée mënut ta leeral ndax juges yi takk nañ wala takkuñ assemblée. munta dugalaat Karim Wade ci game bi kon li xew lan la. ay mag ñu ne ab commission la bu nga xamante ni mu ngi war a dem ba fi ak juróom-benn weer. te ñoom lañ ñu bëgg moo te sànq nag dégg na leen clairement ñu wax ab report maanaam comme leer na ne ñoom li ñu bëgg nii moo di ñu reporter li nga xamante ni moom moo di. élection loolu mënuñ ko élection yi bay wéy na muus ndax tey su doon juge yi kenn ci ñoom conditionnel laay utilisé aurait été coupable de waa juge bi coupable mu démissionné jàpp ni il a été accusé à tort loolu mënut a dàq élection boo delloo 93 président du conseil fa Kéba Mbaye mhm. moo démissionné dàqul élection le président du conseil mhm. waxuma la nag des membres du conseil mhm. donc juge yi ah si si tant que ñoom li leen di jiin dëgg la du dàq élection yi juge yi démissionné du dàq élection yi juge yi li leen di génn am na wala amul mënut a tax Karim Wade bokkaat liste bi génn ni ñaar fukk yi dara mënatu ko ànd. mais xam nañ loolu donc ñoom lan lañ ci nam. politique politique la nax sa bopp maanaam nax sa bopp la politique la politique la ak benn plan boo xam ne dafa am ñenn ci bennoo ñu ko bëgg. xam nga wax naa la fii na la élection yi dafa ñaari groupe yu ko bëgg a repousser ñaari groupe yu ko bëgg benn groupe ci bennoo bokk yaakaar. particulièrement l'APR mooy les maquistes qui ne soutiennent pas Amadou Ba dañ bëgguñu ñu reporter élection ngir ñu changer candidat PDS bëgguñu ñu reporter élection yi ñenn ci opposition bi les recalés bëgg ñu repousser élection yi Ousmane Sonko ak ñi mu àndal bëgg dem élection ndax dañ ko jekku Amadou Ba ak ñi àndal bëgg dem élection ndax da ko ndax moom it jàpp nañ bu ñu ko reporté dañ koy changé lii mooy dilemme. les pro-maquistes bëgg ñu reporté ko ndax ànduñu ak choix Amadou Ba ndax ànduñu ak Amadou Ba Amadou Ba bis bu ñu reporté élection dootu nekk la candidat de Benno et d'après yu ma dégg il va démissionner même. te gis nañ ko tamit mu wax clairement ci ci interview bi nga xamante ne accordé na ko waa Dakaractu nee na moom report bi concerné wu ko léegi nag xam nga man li ma ci euh, conclure ah. libéraux yi nañu respecté sénégalais yi les libéraux de manière générale la famille libérale mm. nañu respecté sénégalais yi d'accord mais li fi am leur gestion vingt quatre ans yi mooy douze ans waa de douze ans au président Macky Sall mm-hmm. tilimul nañ li nga xam ne mooy l'état du Sénégal bëri na luñ ci fooy trop bëri na luñ ci bafoué trop président Macky Sall ak man foofu moom laay waxal moom lim ñu deseel mooy fan yi ko dese nii mu sauvegarder l'institution judiciaire l'appareil judiciaire au plus au sommet muy la conseil constitutionnel comme ni mu ko diggee woon na dana fexe ba magistrat yi ni leen attaqué mu barrer la route à ces malfrats à ces gens mal intentionnés loolu la war a def warul nangu mu ko des politiques jeter du discrédit au sommet de de l'institution judiciaire loolu waru ko nangu lii mooy dernier li ñu Macky Sall amel mooy préserver la conseil constitutionnel. mais PDS actuellement ak seen position chère bi. PDS bokkuñu naar 2019 ñu bokk tamit 2024 kan lañu gën a jege ngir soññ. soutenir ko PDS moom ba fi muy mujj fii la ñuy dem xam nga dem nañ assemblée. Benno na ñoom lay jàppale Pastef na ñoom jàppalewu léegi après fu ñuy mujjee ba ñuy xeex ñeen jàppale woon ñooñ ñooñ jege ñooñ la ñuy voté donc foofu da ngay jàpp ne Benno dafa nekk di leen piège ñaar a tax Benno di leen soutenir benn bi pour wane leur leader a été de bonne foi du moom moo exclure Karim Wade muy benn beneen bi essayer de capter l' électorat du PDS xam nañ ni li PDS entreprendre du mujj fenn waaye nañ ko jàppale rek mooy yow am nga sa naqar ma sol samay verre ñëw taxaw sa boo jooyee ma jooyal la ngir ëllëg suma la soxlaa nga teew loolu la ko loolu la bennoo nekk. mais pourquoi pas PDS tamit mënul allié wu euh, ak ñi nga xamante ñoom ñoo di Pastef parce que gis nañ tamit sànq ku mel ni ay Daffé bi mu taxawee ci li nga xamante ni moom moo di pupitre bi ci temps de parole am ñu ngi masawu Karim comme pour dire que ni donte ni ànduñu ci ab rapport mais ànduñu aussi tamit ci nu ñu écarté Karim est ce que lu ñu mel aussi tamit tax ba tey jii PDS bi ñu waroon def seen choix et pour rester dans l'opposition ñu des di soutenir par exemple la candidature de Diomaye. duñ ko def le petit prince. Sonko arrangé wu ko le petit prince le révolutionnaire ne l'arrange pas loolooy problème moom moo ñu gën bàjjen moom ñoom doa lay toog teg la tànkam activé gars yi fii ñuy tëb a ganal xam nga lu ni mel annoncé woon euh, les couleurs ba ñu xoolee tout récemment sortie bi Cheikh Yérim sekk defoon ñu gis ko muy poussé li nga xamante ni ñoom ñooy les députés de li nga xamante ni moo di combat bi parce que euh, keroog boo suivre li nga xamante ni moo di émission bi sax pratiquement mun naa ne temps de parole mooy da ko consacré ci li nga xamante ni moom moo di candidature de Karim Wade comme c'était pour dire que ni quelque part moom àndul ci ñuy écarter Karim Wade lu mel du yoon et député yi bu leen lâcher prise continuer li nga xamante moom moo di xeex bi. loolu campagne de charme la pour pousser l'électorat appel du pied la dañuy mel ni kuy waxal Karim te waxaluñ Karim benn biu lañ ci soxla mooy après seen sympathisant yi toog gis bennoo nekkoon seen place ñu dem votel la Karim Wade moom votel bennoo boo yaakaar mooy fin carrière politique am en deux mille vingt quatre non seulement du tax lim bëgg a am te moom Sénégalais dinañ ko tourner le dos à gis nga Karim bu munee politique gis nga 2024 bii fii ngay xamee ñi mun politique ak ñi mënul politique ci candidat recalé yi ñu bëri seen fin d'existence en tant que homme politique 2024 la bu ñu xamut gaaw tànn leur candidat ak jeu d'alliance ak fan la ñu war a tànnee ku ci def mauvais choix bi c'est fini pour yow. d'accord léegi ñu revenir at ba tey à l'Assemblée nationale tout à l'heure ci laaj maa ngi koy wax. léegi nag. oui am na lu ma ci bëggoon daaneel. li xew assemblée vaar PDS mooy woote résistance na sans Karim na nit ñi wàcc tali bi bu Karim bokkul PDS ma doon ŋaññi Pastef ak ci seen résistance na ñuy duñu ay homme d'état xamuñu république kon ñoom lañ doon wax du dëkk seen intérêt moo de moo nekkuloon foofu ñoom ba seen intérêt nekkee ci résistance woote nañ ko du gis nga la Benno Bokk Yaakaar di attaquer juge yi loolu karma la Benno mi doon wax naan Pastef c'est pas des républicains moo tax ñuy attaque seen juge yi situation dafa renversé PDS appelle à la résistance Benno attaque les juges Pastef défend les juges. ku mel ni Guy Marius Sagna ku mel ni Guy Marius Sagna kon lan nga ciy jàngat nos hommes politiques li ñuy wax c'est du bluff gëmuñ ko mi ngi dépendre ci seen position. Sénégalais yaa ngi seetaan gis nga lii. Mhm. député yi di def. Mhm. député Benno. di attaquer les may les juges. Mm. député PDS Kazalika. Mm. ñooñu après candidat bu ñu choisir sénégalais yi duñ ko voté. d'accord mais bu taxawee nii ci image yi. Mm-hmm. Mame Diarra Fam bi attaqué Thierno Alassane Sall. Mm-hmm. ba coow li pëccëxoo xeex am fa Thierno Alassane Sall aussi tamit di annoncé une plainte. Mm-hmm. lu ni mel ban ban jàngat lañ ci war a am. danañ ko traité comme ni ñu traité woon Kaawu Amy Ndiaye ñii bi lii de flagrant délit la te lii du benn mbooloo la. heureusement pour Thierno Alassane Sall que y sa machin chan loolu tax na dóoruñ ko gis nga àdduna dafa gudd tànk. parce que Thierno sax def na benn poste juste après la la dictature du copinage parce que j'ai invoqué le droit que j'ai défendu notre constitution charte suprême du peuple du Sénégal j'ai été agressé et ma prise de parole empêchée quelle honte rien ne pourra m'ébranler dans mon combat pour la République objet de mon engagement politique moom sa machin tey vaar yi day def nii. te Thierno bu ñu daan xeex day toog ci kaw. déedéet non Thierno moo doon. croisé li nga xamante ni moo di ay yëpp la du noonu la wooyee woon Guy Marius machin chien tax dooruñ ko. àddinaa ngi nii <laughs> àddina ku xam da ngay teey ci lu bëri. tey ceere ngi nii moom la waa PDS saqatoo. mais aussi lii fin la daan toog naan lii bon c' est inadmissible c' est pas digne des représentants. des sax da daan gàdd ay bagages am. Ah, waaw tey moom la. mais lii aussi tamit tey may na ko benn benn benn publicité parce que a rappelé que ni il est la. may na ko benn publicité benn. dana ko créer capital de sympathie ñaar. ñetteel ba PDS ñoom. ak Benno Bokk Yaakaar ñi jiite lii. Mm. candidat bu leen boot sénégalais duñ la voté lii ça est contre-productif o candidat parce que député yii nii. ku leen boot état bi du la fa euh, gars yi duñu la votel